bienvenue dans Enquête exclusive. Nous sommes ce soir dans la Corne de l'Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres au monde, l'Éthiopie, qui est pourtant regardée avec envie depuis des années, car c'est aussi un des nouveaux tigres du continent africain. Le taux de croissance en Éthiopie depuis des années parfois les 10% par an, à taux de croissance. Quartier d'affaires, commerce de luxe, chantier à ciel ouvert. Il suffit de regarder autour de soi, à Abeba, pour comprendre que ce pays se modernise à très grande vitesse. papa yow loo concentré wu avec équipe bi tey damay renseigné man damay dugg ci internet di renseigné lu bari mais tey euh, damaa jaaxle loolu xam nga la moom ma jaaxle. waaw ah. man dama yaakaar dafa am cinq Éthiopie wala six Éthiopie wala ay Éthiopie yu bari parce que bu dee Éthiopie benn bi ma xam. ñu koy wax ay Eldorado bu bees bi nga xam ni moom moo ne ci àdduna bi nit ñi di ko dem di ko visiter Éthiopie mel nii mu mel nii am ay gratte-ciel ak ay yooyu man may laaj ci ndax Éthiopie biñ daan ñëw bi ñuy jàng première école naan leen nañ pour ñu ñu laaj ndax boobu la bu dee bu fekkee boobu la ñuy wax nañ na suñu njiit yi xool ci Éthiopie boobu dem enquête fa laaj leen nu ñu def ba Éthiopie mel nii parce que Éthiopie compliqué woon ci yoom ba ñu ñëw fi di kenn bu dee ñoom Éthiopie nangu ñoo wax seen kër nañu yónniwaat ñun ay ñu dem ñu ket joxaan suñu xaalis ñun ñu nekk Eldorado comme ni Éthiopie mii man ñaanu ma di soxoru man teguma leen bët mais avancé nañ de Éthiopie avancé nañ torop te Éthiopie yéen bi ñu nekk primaire waa mais lii lii ku fàttali mais ku fàttali lii xanaa kon da ngaa jàngul primaire Éthiopie dañ doon ñëw suñu classe di ket dix franc vingt cinq franc école yëpp yi ne Sénégal ket waaw ñun Éthiopie ñu ñoo ko defar Éthiopie ñu ñoo ko def Eldorado gi mu nekk nii waaye ñun temps bi ñuy ket noonu pour Éthiopie ban président moo fi nekkoon. nañ ko taaj nañ ko woo mu toog ñu ne ko. loolu la doon ñu na de. Ah, ah, ñu ne taw waay. ak ñi ngi fo kay ñu fo ñu dañuy fo fo leen fo leen kay nekk leen à ah, duñ fo ñu nekk suñu xaalis bi duñ fo. ah dafa mel lu laaj seen léegi. lan teex. <laughs> xaaral xaaral rek bu ma wax loo xam ni ah, ngi rek nga ma seen fii léegi. xool <laughs> ah waa ah, waa eh, loolu li waa am na teer teer baa ngi noonu <laughs>